alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala anbiya almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi bokki jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Sidil Muxtaar sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ko wér di ñaan mbooleem umma islamique bi yëpp ak ñi jiite lislaam bi yëpp sunu borom guddal seenu fan te may leen ak wér di nuyu Serigne Gora Seck yow mi nga xamante ne bii yaanu dalal ci émission bii eh, di ñaan sunu borom yàlla na barkeleel sab liggéey. waaye di siyaare it Mouhamadul Amin Faye moom mi nga xamante ni moo nu yaatalal ci barab bii ba mën ko fee defe di ko siyaar bu baax ak mboolem njabootam gi nga xamante ni bii ñoo nekk ci kër gi mooy émission boo xamante ne bii mooy tey jii mooy bi ci jiitu fii ci dëkk bii di Argentine mu mel ni kon képp koo xamante ni bii ab jullit nga wala nga di murit wala tiyaan wala xaadir wala foo man di nekk ñu ngi sàkku ci yow képp koo xamante ne bii émission bi yitteel na la kon mën nga koo xool ci YouTube su ko defee boo tàppee Touba Argentine TV 1 rek incha allahu rabbi di ko mën a am képp ku bëgg amoo it euh, mën naa nekk kon. sëriñ Gora ñu ngi lay siyaar bu baax a baax ci jataay bi nga xamante ne bii am nañ ko ak yow muy jataayub yàlla di jataay bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jataayub Seexul Xadim waaye di jataay boo xamante ne bii it dañ koy def ci weer wi nga xamante ne bii muy sahru ramadan al mubarak muy weeru ngëneel waaye laata loolu it. Euh, xanaa ñu fàttalante tuuti rek ndax dañoo wax ni jataay bu ay jullit di toog la ca gën mooy fàttalante ndax dañoo wax ni fàttalante <coughs> moo gën téeméeri rakkaa yow julli te ku ne xam naa ni téeméeri rakkaa dara ji ni mu am ak yool bi ci nekk waaye fàttalante rek moo ëpp daraja loolee kon dañuy fàttalante rek ndax jamono jii ñu toll nii doomu aadama day aajoo ko walla ñu di ko fàttali li war diggam ak boroom xool tamit aajowoo ku koy nàmm aajowoo it ku koy fàttali ndax saa su nekk day fattu te jamono bu nekk seytaane day jug taxaw ngir yàqal doomu aadama bi ci lépp lum jug ngir bëgg koo def ci lu baax saa su nekk seytaane mu ngi jug ngir dax yàq loole kon mi mel nii dañuy fàttalante rek ngir jëmm yàlla te yàlla rek tax ndax ku ne xam na ni seytaane lam ñaanoon sunu borom subhanahu wa la wax ko ne ko dama bëgg nga bàyyi ma fi ba ba nuy wal buftu bi ku ne xam na ni sunu borom may na ko loole muy xaala anzirni ila yawmi yub'asun seytaan dafa ñaan sunu borom ngir sunu borom bàyyi ko ci kaw suuf ba saa taxaw waaye loolu yi nga xam te ne dafa ñaan sunu boroom nag sunu borom daf ko ko may muy xaala innaka minal munzarin kon seytaane la la mu ñaanoon sunu borom sunu borom bàyyi ko ci kaw suuf ba ba bis penc sunu boroom may na ko ko ba ko sunu borom mayee ba noppi nag mu tax waatal yàlla ne ko dinaa gàllankoor. sa mbindeef yi ba nga bëgg ci ñoom doo ko ci am daan na ko fa bi ma axwaytanii la aq'udanna lahum siraataka mustaqim dinaa gàllankoor sa njaboot gi gàllankoor si doomu aadama yépp ba lépp loo xamante ni bii lu baax la wala muy yoonu siraata mustaqima su boobaa dina leen dikki anam bu nekk ba loolee duñ ca mën a antu teg te nag ne ko sumala atiyannahum min ay aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an samailihim te loolu mooy lan <coughs> mooy bu amee ñuy mucc ci pexam seytaane ñu néew a néew a néew doon waaye loolu lépp la ca ëpp solo ci jartaatit mooy la sunu borom wax ne ko la man tabiaka minhum la am la anna jahannam minkum ajmaina te mooy képp koo xamante ne bii ànd na ak yow mu yow seytaane na la wóor ni dinaa la booleeg moom tàbbal sawra mooy lu mat a bàyyi xel ndax jamono bu nekk seytaane mu ngi jug ngir yàqal doomu aadama bi ci lépp loo xamante ni bii lu baax la saa soo jógee ngir wuti lu baax seytaane day taxaw gàllankoor loole kon lu mat a bàyyi xel la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waxoon walla boog lañ ko askanale mu wax ne annaasu niyaamun fa iza maatu intabahu mu ne nit ñi dañuy nelaw rek waaye saa bu ñu dee dinañ yeewu ndax dinañ gis luñ mësta gis di dégg luñ mësta dégg xool ba fa seen bët yam lépp di kéemtaan ndax ku ne xam ne dunduk doomu aadama ci kaw suuf am na kiiraay yoo xam ne dafa dox ci diggam ak boroomam ba lu bare bare bare bare daf koy lënt te suñu boroom waxoon na ci alxuraan ni yaa ayuha nnaas inna al waxda laahi fala taxurannakum alayaatu dunia wala yaxurannakum billaahi alxaruur waaye lam ca teg mooy inna seytaana lakum aduwwun fa taxisu aduwa innama yaddu xisbu innama yaddu xisbu liyakum mu mel ne kon sunu borom mi nga xamante ne bii moo sàkk jaam ni xam na ne ay waxam dara du ca deñ te lépp lum dal doomu aadama yi dana am ca ku ne xam na ni seytaane képp la sunu borom wax na ngeen ko jàppe mooy sinum noonu inna seytaana lakum addun fa taqisu adduwa innama yaddu isbahum li yakun min ashabi sayr kon doomu adama bu nekk war naa jàpp ni seytaane moo ab noonam diggante doomu aadama ak doomu aadama seytaane amu ci yoon waaye seytaane saa su nekk day jug taxaw ngir yàqal ñi jug ngir bëgg lu baax saa su nekk ak ci anam bu nekk kon nit ki war na saa su nekk bàyyi xel diggam ak boroomam ak lan moo tax suñu borom wàcce ko ci kaw suuf ndax da ci am yoo xamante ni bii yoon doomu aadama nekku ci ndax nit ki fa mu juddoo te askan moom juddoo loolu yoonam nekku ci ndax loolu sunu borom moo ko ko def guddam ak gàttam loolu yoonam nekku ci ndax sunu borom moo ko baaxee rafetam ak ñaawam loolu yoonam nekku ci ndax sunu borom moo ko baaxee kon li nga xamante ne bii mooy li ëpp solo ci doomu aadama mooy li la sunu borom sàkke nga war a xam ni lii moo tax sunu boroom sàkk la te mooy nga jaamu ko. li mu wax ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni suñu borom bindul nit ak jinne ak malayka lu dul ni dañ koo jaamu kon mu mel ni jaamu yàlla rek mooy li war ab jaam ci kaw suuf leneen waru ko leneen lu def lu bokkut ak jaamu yàlla na ko wóor ni day nax boppam ca du ci am payu yàlla kon li ëpp solo ci doomu aadama bi saa su jugee ngir wuti lu baax saa su ko seetaanee di dëpploo na xam ni pexey seytaane jubluwu ko fa lu dul ci sawara dong te it ku ne xam na ni seytaane it saa su nekk day yàqal doomu aadama bi ci saa soo jógee di dëgmal lu baax ngir di ko wuti seytaane day taxaw temm ngir yàqal loolee muy lu mat a bàyyi xel ci doomu aadama bu nekk ndax ku ne xam na ni àdduna sii ñu nekk képp koo xamante ne bii yaa ngi dund ci kaw suuf moo xam at yu bari nga def dund moo xam at yu néew nga fi dund waaye gis nga ne am nga mbokk moo xamante ne bii dem na ci ma demee ba léegi ko wala nga am wayjur woo xamante ne yaa ngi woon ak moom di dund dundin woo xamante ne bii toog nga ab diir gisatoo ko ci xamoo ci lam nekk mu wóor na rek la yóbbu lool la yóbbu la yóbbu ñooñee yaakaar naa du la fi bàyyi kon doomu adama bu nekk war naa bàyyi xel ci ak dundam. ak njëriñ li nga xamante ne ak dund moom la war a am ci kaw suuf bariwaan na ñoo xamante ne bi seytaane day dem ba yàq seenub xol ba lu baax duñ ca mën a déglu dara ndax alquran dafa wax ni xattama la wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim xishawa mu mel ni kon am na ñoo xamante ni suñu seenub xol ci boppam dafa xas lëndam ba noppi e, taas ya ca nekk tilim na ba noppi dara mënatu la tax ba loolu ñu génn ca mu mel ni kon loolu pexem seytaane moo koy waral ndax seytaane moo lay loo lu ñaaw di la ko waxloo di la ko jëfloo ba pare teg ci naan la bu tuuba yàlla jégal la ku ne xam na ni tuubal sunu boroom lu mën a nekk la waaye dañuy wax ne tuub tuubee lu ñàkk solo la ndax dund gii ñu nekk ci kaw suuf képp koo xamante ni bii yaa ngi dund ci kaw suuf guddi ak bëccëg di la romb te dañoo wax ni diirub jamono weesuwul ñaar wa ma dahru ila laylatun wa xar jurub jamono rek weesuwut guddi ak bëccëg ndax ku ne xam na ni guddi yi nga xamante ni bii dalay romb saa su weesoo na la wóor ni dem na ñëw waaye bëccëg yi nga xamante ne nit dalay romb it na la wóor ni bu demee duutu ñëw waaye doomu aadama mi ci boppam ak gàtt xelam moo jàpp ni guddi ga ko romboon moo dellusiwaat tey waaye wala bëccëg ga ko gam romboon moo dellusiwaat tey ji te fekk na la ko weesu woon weesu na ko loolu tax suñu ci waa di wax neen laylun tawilun xas tuxassir bil manaam guddi gi lu gudd la waaye buñ ko gàttal ay nelaw kon nit ki li war a diggam ak boroomam mooy jaamu yàlla ndax mooy li tax sunu boroom sàkk ko waaye sàkk ko ngir am ko ngir ak caaxaan mu mel ne kon ci loo lii lañu sunu borom baaxe li ñuy wax weer wu tedd wii muy asahru ramadan al mubarak sunu borom wax ni yaa ayuha allazina amanu kutiba alaykum alsiyam kama kutiba ala allazina min xablikum farataal naa ci yéen koor na ma ko farataale woon ci ñi leen jiitu muy weer woo xamante ne bi weeru ngëneel la di weeru tedd nga di weer woo xamante ni saa su ñëwee doomu adama bi lépp lu daan def ci ab safaan war na ko mën a bàyyi di góorgóorlu ci baax lépp lu mu daan def ci lu baax war na caa mën a góorgóorlu ba yokk loolee mu mel ne weer la woo xamante ne bii képp ku ci profitoo jaamu ci yàlla da nga war a sax ca loole ba weer woowee jàllee nga mën a sax ca jaamu yàlla gooy nga ko doon def ndax bariwaa na ñoo xam ni bu weer wu ñëwee dañuy tàmbali di jaamu yàlla waaye la ca gën a gën a doy waar mooy saa suñ demee ba ne weer wii kat feeñ na suba la ñuy wari ñoom buñ xëyee lañ jàpp ne mooy seenu feet mooy dañoo war a dem ca boolitier wala ñu dem ca baar ya wala ñu taxawaalu ci fekk na fàtte nañ ni kon génn nañ weer yi nga xam ne bi mooy weeru jaamu yàlla bi sahru ramadan bii mu nekk weer la woo xamante ni sunu borom da ko fonk lool ndax ku ne xam na ni fukki weer ak ñaar moo am waaye liñ ci jot a gëstu xam ko weeru koor la ci sunu borom jot a tudd mooy sahru ramadan mooy weeru koor waaye nag weer woowu nag dafa am ngëneel lu ci amaat mooy allazi unzila fiihi alquran ku ne xam na ni ci la sunu borom wàccee alquran jii nga xamante ni bii mooy sunu lépp. di lettre boo xamante ne bi sunu borom moo ko teg ci kaw jaam ñi ngir ñu di ko saytu bu baax di ko jàng di settantal baa di di xam lu ci sunu borom wax ak lu mu ci dalee bu ëllëgee mu mel ne kon nit ki saa su weer wi ñëwee muy weeru koor wi war naa mën a profité bu baax a baax ci ay jaamu yàllaam waaye profité bu baax nag ci tuubal yàlla ana lan lay tuubal yàlla mooy day fexe ba lam nekkoon ci ab safaan mu bàyyi ko waaye lépp loo xam te lu baaxoon la mu sax ci loolee waaye nag bu waxuñu nag ni dangay ngay def lu safaan ba weeru koor ñëw nga ne da baax su weeru koor yooyu jàllee nga continuer waat nekk ci ay bon bon déedéet wax tax ñu jox loolu ndax ki mooy ki yàlla jox kàttan mu daan def ab ñaawteef di dem di dem ba xam ne lii waru ko ci ak kàttanam googee mu dese woon mu leer ko ne lam doon def mën na ko ba léegi mu tuub bàyyi lam doon def foofu la ñuy wax ak tuub ndax ku ne xam na lislaam dafa soxla ndaw ndax tey lislaam bu soxla woon ay ndaw yuy xeex du xool ko lompoñ wala ko loof day xool ka am kàttan mu jël ko yóbbu ko kon ndaw lu am solo la ci dundu doomu aadama kon kenn waru koo fooye ndax segam lislaam bu taxawoon di xare ndaw lay jël te bu xoolee day xool ñu am kàttan mu yóbbu leen kon kàttanu ndaw lu am solo la li sëriñ bi doon wax ni képp ko jox sag ndaw sunu borom boo demee ba nekk mag sunu borom moo lay teel boppam te loolu lu wér la ndax bari na fi mag ñoo xam te ne magi lislaam yi dund nañ ñii ay téeméer at ñii juróom-ñeent fukki at waaye ba ba ñuy faatu mosuñoo nag mosuñoo nax te lépp suñu borom moo ko waraloon ngir lan mooy jox gan joxoon suñu borom seenu ndaw bi nekkee mag mu téye leen ko kon mu mel ne weer wi nga xamante ne bii ñett da ci am muy weeru yërmande la muy weer woo xamante ne bii weeru njëggal la. waaye di weer woo xam te ne dañuy góoreel ci sawara muy weer woo xam te ne saa bu ñëwee suñu borom day tëj juróom-ñaari bunti sawara yépp ubbi juróom-ñaari juróom-ñetti bunti àjjana yépp kon ku ne xam na ni fonk googu sunu borom fonk ak yërëm jaam ñi nga xamante ne bii bëgg ñu profité ji ni ñu koy faral di waxee naan weer la waxam ne weeru promotion la képp koo xamante ne bii raw na la ci jàmmu ci yàlla na la wóor ni perte nga ndax ci nga war a mën a tàmbalee. ci sab xol lépp lu nekkoon ci yow ay taq-taq wala ay ñaawteef nga raxas ko ci yéene sa bopp jàmm waaye yéene ko mbooleem jullit ñëpp jàmm lépp loo yéene sa bopp ci lu baax nga yéene ko ñëpp waaye lépp loo gis ci lu baax ne boo ko waxee nit ki mën na koo jariñ su boobaa nga def loole mu mel ne kon weer la woo xam ne bu nu xoolee sunu mag ñu baax ñëpp ci misaal Serigne Touba mi nga xamante ni bii moom lañu yaakaar day wax ni. weeru koor wi saa su mosaan jub si wala bun ne séentu nañ ko tey ji ba gis ko da daan woo fere yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci biir kër gi bu nu agsee mu daje leen ba ñëw moo xamaleen ni leen weeru sexu ramadaan wi de teeru na waaye maa ngi leen di xamal ni sama liggéey bii su ngeen ko mënee booleeg weer wooru yàlla wii na ko def waaye su fekkente ni nag mënu leen koo boole na ngeen bàyyi lii ma leen defloo te ngeen dem woor weeru yàlla wi kon mag ñooñu xam nan sunu borom dara ji jëm jox weeru koor ak ñeneen ñi nga xamante ni bii ñu mel ni ñoom ci dundin googu lañ doon dund teg foofu noonu fi sunu borom teg weeru koor ñoom ñu teg ko fa wëlbatiku nag di ca jaamu yàlla jaamu yàlla yoo xamante ni bii duñ ko jaamu yàlla ci yeneen weer yi mu mel ni kon weer la woo xamante ni bii doomu aadama bu nekk war na ci mën a profitoo bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax ak muccam bu nu xoolee ci mbind sëriñ bi comme ni sunu boroom waxee ni weeru koor am na ci génn guddi koo xam te bii moo gën junni guddi muy lan mooy laylatul xadar inna anzalnahu fi laylatil xadri laylatul xadri xayrun min alfi shahrin am na ci génn guddi goo xam moo gën junni guddi kon loolu rek war naa mën a tax ñu fonk ko te wormaal ko te sagal ko ni ko suñu borom fonke nu fonke ko noonu ah, di ci sax ci di jaamu yàlla ci suñuy guddi ak suñuy bëccëg boole ko nag ak ànd ko ak alxuraan ndax segam ci la alxuraan wàññi wàcc kon weer la woo xam te ne weer alxuraan la da ngay woor ba noppi ànd ko di jàng alxuraan muy guddi ak bëccëg. ndax li suñu borom waxoon nii laylatul xadr xam alif seen sëñ waa daf koo tënk ci yaa sahra rabbin karimin fii ka jaadalana bi laylatil xadri zaatil fadri wa raxadi mu mel ne kon li ñu tënk ci laylatul xadr ko moom loolu la wax mu ne weeru màgg wi nga xam ne ci lañ suñu borom baaxee génn guddi kuy gën junni guddi kon lu mat a bàyyi xel la kon weer la woo xam ne weeru màgg la bu tedd la ndax weeru alxuraan wàcc wëlbatiku ñu def ci génn guddi goo xam moo gën junni guddi kon lu mat a bàyyi xel la ci jaamu yàlla yëpp yoo xam te ne bii ñi ngi koy dëg ma wala ñu ngi nekk ci biir mu mel ne weer la woo xam ne tamit li mu wax ne illay xat tubtu fii sehbaani an rajabin mu jaddidan fii ka fashat lii bi tarkidani nga xam ni kon ñoom comme ni ma ko waxee woon rek ne su weeru koor wala rajab mu santeru ñoom ci la ñuy tàmbali di tuubal yàlla di def ay lawraat di ñaan yàlla suñu borom fekkee leen ko ñu mën ànd ci jaamu yàlla yi nga xamante ni moom la ñu jaamu yàlla mu mel ne kon ñooñee nga xamante ne bi ñoo xamoon darajey weer woowee daawuñu ko nattable kon baax na kon ñu ngi koy yemale fii di leen jox dox daje ci beneen partie bi nga xamante ni mooy deuxième partie bi incha allahu rabbi ci diir bu gàtt jërë ngeen jëf